biir ëccubeekaay yi di wax na ne réewum Sénégal bokk na ci réew yoo xam ne war nañoo jël seen matuwaay ci wàllu xeexub terrorisme moom moomu nga xam ne nag moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo daal di ne xam le ne réewum Sénégal comme yeneen réew yi nekk ci biir àddina bi ñoom ñëpp war a booloo xeex li nga xam ne nag moom mooy wàllu terrorisme moom moomu di ministre Abdoulaye Daouda Diallo daal di ne xam le sax da dinañu dëggal tere bi nga xam ne nag moom la njiitu réew mi tere ñuy sol li ñuy tuddee burka moom moomu nga xam ne nag moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo ne li ni mel la ko waral moom mooy xeex xeex xeex bu tar rek li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu terrorisme ci biir cuglikaay bi di l'observateur suñu natango yi sax ñu ngi ñuy xamal lu la ko waral moom mooy daal nit ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñoom ginnaaw bu ñu defee ay la ñu gis moom mooy ne nga xam ne de ñoom ñooy faral di sol li ni mel day am ñuy làqatu solu ni ñoom ba pare nag di def ñaaw teef loolu nag moom moo tax mu nekk ni daal comme nañu ko teree ci yeneen yu nekk ci biir Afrique li ni mel tamit la ñu fas ne def euh, fii nga xam ne nag euh, moom mooy ci biir Sénégal li am ba des daal kàddu yi nga xam ne kii di Abdoulaye Daouda Diallo fësal na ko nag jëmale ko ci xeex bi nga xam ne dañu koy xeex wàllu terrorisme cuglekaay yii di le témoin ak tamit le populaire moom la ñu daal di fësal ci biir cuglekaay euh, bii di enquête suñu naataango yi nag di ñu wax ne Macky Sall moom de daal di nay woo l'opposition bi ak tamit ñi nga xam ne de ñoom la bokkal mbir yi ngir daal ñu daal di lëngoo ñoom ñëpp xeexandoo li ñuy tuddee terrorisme cuglekaay bii di enquête di ñu xamal ne sax na tamit ñu bokk ci biir l'opposition bi ñoo xam ne tamit nañ ci wante la ñu njëkk wax moom mooy daal ne njiitu réewum Sénégal koy ñaan tamit moom mooy mu daal di ci boole képp koo xam ne nag da ngay ci langue politique bi ngir xeex boobu gën a mun a antu ba léegi ci li nga xam ne nag moom mooy jublu ci attentat ya amoon ca Paris jóglekaay bi di laas ngi ñi xamal ne ba léegi moom amul la kenn koo xam ne ab sénégalais nga ku ci ñàkk sa bakkeen wante lañu nemeeku moom mooy ne benn doom woykat bi di Idrissa Diop moom de ma nga woon nag ca wetu fa attentat yi doon amee mën nee nañu sax daf ca am ay gaañu gaañu ki nga xam ne nag moom mooy papam ak producteur am nga nekk ca Paris ñoom de jóge woon nañu nag bu yàgg ca onzième arrondissement bi laata nag xew-xew yooyu di am foofu nga xam ne de ah, moom mooy ca ah, Paris ci biir publicaay bi di direct info daw coow la muy laajte moom mooy ndax xeex bu tar du am fa li nga xam ne sax ah, moom mooy ca Géejawaay la ko waral moom mooy ne ba ñu jëlee kii di Bougazeli ca bopp coordination départementale bu APR dafa mel ni nag ne moom de dafa fas yéene nag bañ a nangu décision gi ni mel jublekaay bi di direct info mi ngi ñuy xamal ne léegi sax ma ngay woo njiitu réewum Sénégal nekk it ki jiite parti bi di APR ngir mu daal di wax jëmale ko nag ci xiiro ak ŋaayoo ba am ci digganteem ak ki nga xam ne de moom mooy Aliou Sall waa forum civil ñoom nag daal di nañuy naqarlu lu lu tax ñi nga xam ne la ñoom ñooy waa ARMP daal di dàq nag publication rapport d'audit 2013 2014 ci biir jublekaay bi di Le ñu ngi ñuy xamal ne section sénégalaise bu transparence Amnesty International ñoom la ñu gis moom mooy daal ne waa ARMP dañoo jalgati yoon Aïda Patra ay mbiram dañ ciy jukki ak culikaay bii di grand place ndaxte moom démb moom ak ki nga xam ne de moom la ñu jàppandoo woon doon leen tuumal ne daal dañ doon tox yamba ñoom ñaar ñëpp nag bàyyi nañu leen ñu delluwaat seen kër culikaay bii di grand place mi ngi ñuy ne Patra ba mu taxawee nag ci kanamu juge bi daal dinay xam le ne moom ma nga woon ca googu ñu ko jàppee ndaxte dafa amoon ñaari robe soie yoo xam ne daal da ko doon woon ku ñuy tuddee madame rax ci dolli moom ne ak policiers yi fekkuñu ko muy tux yàmba moom nee na sax day naan ba ne tat wante nag du muqi yàmba Aïda Patra ak kenn ko jàppandoo woon nag bàyyi nañu leen ñu daal di ñibbi seen i kër ci li nga xam ne nag moom moo jublu ci mbirum am na ci mbóot cuglikaay bi di libération ma nga ñuy nettali nag guddi goog nga xam ne nag si la ñàkkee bakkanam lépp na mu demee ndaxte ñu ngi ñuy ne moom moomu di Mati Mbodj dafa àndoon ak ku tudd Mohamed Kama ak tamit Thierry Ngom nee nañu nag ñoom ñett daal ñoom ñoo nekkoon ci ab appartement boo xam ne euh, meublé la bu ñu loué woon nee nañu nag foofu dañ fa doon jëfandikoo ko cocaïne ba nee na sax ki nga xam ne de moom mooy euh, Mati Mbodj la mu ca jëloon dafa ëpp ba loolu nag moom moo ko sonaloon au lieu que ñi xam ne nag ñoom la àndaloon euh, daal di koy xettali fexe nag ba daal di woo ñi nga xam ne de ñoom ñooy secours yi wante defuñu loolu dañoo doon jéem nag di ko xettali ci seen bopp te boobu fekk na nag ñoom mënuñu ci woon lenn ba ñu toogee nag di ko xool di ko xool ba nag kii di Mati Mbodj mujjee ñàkk bakkenam la ñu def moom mooy daal fomp samp foofu ba mu set wecc daw nag soog di woo police ngir mu ñëw liñatu néew ki nga xam ne de ah, moom mooy Mati Mbodj ñu jeexale ko ak wàllu tàggat yaram tey jii suñu gaynde yi dinañu jàkkaarloo ak waa Madagascar te si ngoon la fas yéene am stade yéene kaay ne nag suñu gaynde yi war nañoo mën a wane nag xar kanam bu bees tàq ngir xalaata mën a am ndam ci ñi nga xam ne de ñoom ñooy waa a Madagascar lii moo nekkoon mbokk julukat yi di gën a fas ci biir ëcculikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jàmm Sénécar Tour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location